ak ak jàmm ci xibaar yéen yi nga xam ne rek moom la xëyandoo ñu daal koy door ak la tribune yéen gi duñu xamal moom kay boo moytul dinañu dem couvre-feu maanaam daal 9 gii nga xam ne rek ca lañu ko yóbbu daañu ko wàcc ba 8 maanaam daal juróom-ñetti waxtu ci guddi boo moytul 2024 dina daj kàpp yi nga xam ne rek moom moo di réewum Sénégal la ko sabab nag moo di jàngoor ji ak nii nga xam ne rek noonu la wulee ñaay ci réewum Sénégal doy na waar lool lu ëpp fukki nit dinañu faatu par bés tey nag jàngoro covid 19 gi moo leen yóbbu tey nag ñoom fajkat yooyee donte nangu nañ ne ci ni nga xam ne noonu la war a waxee askan wi donte donte nag ay njuumte am na ci l'évidence yéen kaay ne ñu kay njuumte dëgg jamono ji yorinu covid 19 gi moom moo gëll góose ci réewum Sénégal vox populi yéen kaay docteur yi kay jamono ji donte nag ña ngay amal ay pexe ngir jàmmaarloo jàngoro covid 19 gi teewul nag ma ngay def mbir yéen kaay gi duñu xamal ne maanaam daal ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci bokk moomeel yi jamono ji jàngoro ci fukk ak juróom yoo xam ne jamono ji jàngoro covid 19 gi ba tax nag yéen kaay gi laaj maanaam daal lii bu wéyee yéenekaay gi di Rewmi Quotidien dëggal xibaar yi ne kay armée li yi daanaka daal bés bu set lu ëpp ñaar fukki nit daañu leen denc surtout ah yéenekaay di di ñu xamal ne jaaxle da gi des na ndax lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ko ñàkk yéeg yu a nekkee yi nekkee ci àdduna cee jot ñu néew dooleeg ñu am doole si di quotidien yéen a kaay moom xëy dem ci àllub Casamance bi ak nag ñu koy daggee lu jëm ci wàllu garab gi yéen a gi duñu xamal ne réewum Gàmbi kay na mu cey doxee doy na waar lool maanaam ci suuf léeg-léeg mu wax ci suuf léeg-léeg mu def ci suuf di màtt di ëf Boubacar Seye yéenekaay gi di Libération di ñu xamal a gi di L'Observateur xamal ne moom jaari kay léegi leer na moom feeñal na boppam waaye nag dellu si ci réewum Sénégal moom jaari lànk na maanaam daal fa mu doon jànge sax lànk na ne du fa dellu si doon compte nag bourse ga nga xam ne rek dañu ko doon jot mu toll 425 000 yéenekaay gi duñu xam ne ba léegi ma ngi koy wéy di jot Les Échos yéenekaay duñu xam ne livre mbët yi itam ba léegi ña ngi koy njëkkante ñu daanee ko l'Observateur yéenekaay gi duñu xam ne xale bu jigéen bii nga xam ne rek moo jamoon paako ab jarbaatam fii nga xam ne rek moom moo di Touba yéenekaay gi duñu xam ne jamono ji yoon teg na ko loxo